bii droit lay teg. waaw foofu am seen am amaa fa gën a gaaw. Hmm. barke alxuraan. bu ko fa amaa àggee. non leneen la ñuy waxaat. Hmm. mais Modou Lo du mbër bu ñuy simpi de. non danañ ko simpi ne simpi nañu ko yoon yoon. Hmm. waaw waaw. nga da koy simpi ci kaw. bu taxawee mu simpi ko ba taxaw doo ci suuf bu risque risque bañ a bëri bëri te xeex ñu dóor ko mu daal ci kàttanu yàlla. mais loolu ko teg fii si baatin la wala. gën a nekk xale. waaw gën a ñeme. waaw décision. Uh-huh. gën a ñeme géewu. Mm-hmm. gën koo doon ci bëre. Mm-hmm. ci deret. Mm-hmm. ba pare xam naa ama làmb dabu ko. da koo doon. kon amul lu amul benn sens. bokkul lu ñu bokk ñu ko formation. lamb da lay dab am na ñoo xam ne lamb da leen dab rek. ñu juux ci lamb rek am ci dara. kon ama ama amul benn amul yàlla moom ci benn sens. ndax dañ liggéey lu tax du am sens waaye itam ñuy def loo xam ne ci bis ba ci kàttanu yàlla di ñaan yàlla yàlla ànd ak ñun ñu daan ko cër bu yàlla ci kàttanu ne bu taxawee bëri si ñu daan ko mu xeex si ñu dóor ko mu daan Modou Lo mën na daan Ama non man gëwuma ko nag parce que dernier combat parce que dernier combat bi ñu a bëri nii hmm. ak dernier combat yi am mujj bëri nii seen i bëri dañoo xam ne loolu maa toog li ma lay wax ni rek bu la neexee nga dem archive nga mm. xam nga liy làmb ba mm. nga tegal ma film yi ñoom ñaar ngeen tegal ñoom film ñoom nga xool leen ñoom ñaar ni ñuy bëree